derrière Yeesal commune Kermassar Massar Nord plénipotentiaire Nous candidat candidats, ndax avons fait sama déclaration mais ma top, topp si madame le ministre Assome Aminata Diatta pour nous ànd dem à la conquête de Kermassar Nord déclaration bien, Plein de yi les responsables ñi nga xam ne qui parti politique yi nekk si biir Nord, Massar Nord at mouvement yi ñoom ñoo décidé muy politique muy mouvement citoyen muy mouvement yoo xam ne euh, dafa laal si profession maanaam wàllu liggéey wala muy mouvement yoo xam ne ñitu euh, diine yi lañu wala ñitu public ñoo jël si suñu tur euh, déclaration bi gannaaw bu ñu seetloo ne parcours madame le ministre Aminata Diatta muy parcours académique am maanaam wàllu jàngam wàllu xam-xamam wàllu xarañam bu ñu ko seetloo seetlu aussi li nga xam ne mu ngi koy def si biir Kër Massar lu jëm si euh, social maanaam ndimbal askanu Kër Massar muy ndaw ñi muy mag ñi muy xale yi muy képp koo xam ne yaa ngi yewoo si biir Kër Massar Nord euh, ñu gis que ne euh, loolu suscité na ay réaction yu bëri si askan bi ba ñu jël jëloon le 9 octobre bi passé Euh, def benn déclaration d'investiture te ñu ko defoon moo doon ay délégué de quartier cinquante quatre délégué de quartier quarante neuf bàjjenu gox ak vingt cinq imam yu nekk Kër Massar Nord ñoom ñoo defoon te jamono yooyu madame la ministre nekku fi woon de mi ngi woon mission bitim réew ñoom ñu jël décision ne dañuy investir madame la ministre xam nga ñii du ñu ay politique ñii ci société civile la ñu bokk ñoo jël seen initiative pour investir madame le ministre alors bu ñu considéré loolu nag ñu gis que ne euh, départementalisation bi dafa am lu bëri lu mu ëmb si lu baax pour askan bi euh, si kaw loolu ñu gis que ne juróom-benn commune ñoo nar a seq département bu bees bi muy département Kër Massar te ñun ñu bokk si benn si juróom-benn yooyu muy Kër Massar Nord ñu gis que ne euh, défi yi bare nañu lool li nga xam ne Kër Massar Nord daf koy jànkonteel ñu jëm inondation jëm cadre de vie Madame de jëm si la sécurité jëm Nous avons de ndaw ñi Nous de suñu appel de la république de Macky Sall def pour que képp kuy wuyo ci wala képp ko xamné nga mu wolen si suñu nek pour former unité rawatina wa Benno Bokk Yaakaar mu laaj len pour ñu trouver consensus manam waxtaan ba jubo ba d'accord ne ci kenn ne moy jitu ñu ci des top ci ñu gis que force yooyu yep suñu bolé force yooyu yëpp euh, day doon lo xamné lu am solo lu am importance la lui jëm ci élection yi ñu jëm ñu gis aussi que né li nga xamné moy réalité politique bi euh, euh, contexte bi nga xamné tay tey mom lañu nek mu euh, euh, élections. Et ak li mu ëmb si ay enjeu si ay tension si ay retrait, euh, si ay engagement ñu ni ñun ñi jël nañu décision muy politique yi muy société civile bi nga xam ne ñoo fi pour investir tey jii tabb madame le ministre comme suñu candidate pour élection yi ñu jëm muy janvier 2022 mu signe suñu candidat fii si biir commune Kër Nord. alors nous ma li nous si déclaration bi est-ce que le na ma waxaat donc nous, ñi ma limoon sànq ñooñu ñoo signé déclaration bi ñoo teew société civile. société civile nag soo ko déggee dafa am imam am délégué am ay bajjanu gox am ay mouvement ay ASC.

bis bu am importance parce que politique yi ñoo décidé pour investir ko pour xamal président Macky Sall mi nga xam moy président coalition Benno Bokk yakar que fi Kër Massar Nord ñi wuyoo ci ce tour té nekk ci Benno Bokk yakar ñun ñi la jël nañu décision bis ni pour investir Son Gata madame comme candidate Kër Massar Nord. wax hein? su ñun duñu considérer considéré que benen tànneef pour Benno Bokk yakar parce que ñun ñooy représentant. légitime majoritaire Benno Bokk Yaakaar fii si biir Kër Massar Nord. yëpp di wax ni man Oulimata Ndoye premier adjoint maire tey maa taxaw fii si Kër Massar Nord ndax man taxaw naa ni candidate laa woon mais tey dama jël sama candidature jox ko ki nga xamante ni gis naa si moom loo xamante ni doy na ma am na taxawaayu responsable taxawoon na leader bo xamanteni ni na ginaaw ta xamna na ñu muy and jox na leen seen gën mu tok and ak man ñu waxtaan ta bañu waxtane ma sha allah lima gis ci mom ba tay ma jox ko loxo man mako xam ak ñi ñu àndal mi benn bokk yaakaar bi ñu fas nak and jël suñu commune nord bi di xamal président ni tan nañ ci ki nga xamanteni moy ministre Assome Diatta moom la ñu jiital si commune nord bi moom la jiital ñun toog nañu waxtaane ko ba d'accord ko amul loo xamante ni rek war naa mën a am fii si loo xamante ni war nañ ko mën a xel ñaar si commune nord commune nord nag nous les responsables xamante nañu ñun ñoo fi nekk ñun xooluñu ku ñu mën xooluñu ku ñu wan qualité la ñu la ñu àndal loolu laa bëgg ñu xam ko loola waral tey ñun magum jëm nous sommes leader mais tey bu ñu jëlee jox ko loxo ànd ak moom pour jiital ko sa parce que moo ko wane su ko wanewul woon duñu taxaw fii di wax loolu laa bëgg askan gi xam ñu si woo kenn ku nekk nag ñu ñëw jàppale ñu kenn ku si nekk dugal sa loxo loolu la ñuy wax pour wax ko askan bi wax ko population bi commune de nord de Kër Massar allah.